daal ne dégg ñuy wax fi boobu fii dafa am commencé am bouché biir toilette bi di am xete gi demee noonu mu ne Bira dama bëgg keroog Dakar la ma fekk yaakaar naa ma bi ñu ngi suñu association bi de len foos Bira ne ko ah lool de mom que président bi def nako ko ba pare ñun kay dañoo am ay projet yo xam dañu bëgg kuñ ci jàppale Bira da koy won euh, mo baaba projet bi mu dem en dans deux jours mu dellu ci waat ne association bi adopté nañ projet

lu bax lu bax rek la mën a doon man fi tamit dama fay am yaakaar yaakaar bu moy sim sa ci lu mu radiyallahu taala an lu mu samp ah yaakaar rek mo ci mën am am delu ginnaw euh de surcroît ñu am derrière nous nit ko xamni euh seigne Abibu yalla na ko yàlla sàmm ni mu sàmmee alxuraan moo ki rakam ak magam mu nek suñu ginnaw teer ñu suñu mbak ba tax ñu ñeme ñun bu ñu ñemee ñu bari ñu koy def depuis depuis depuis ñuy lancé yëpp suñ ginnaaw kon ñu ngi koy sant moom it euh, di ko gër leen di xamal ni ànd bi daa xaj na day doog a tàmbali liggéey bi day doog a tàmbali waaye du yem fii danañ ànd ak yéen mbooleem seeni projet rawatina projet boo am solo bii tey da ngeen a nekk ñu neex a jàppale parce que ñoo xam ni ñoom dañuy def ñoo xam ni ñoom foo foo demut ñoom dañuy dem ki nga xam ni taxawal na projet bu toll nii ah wax dëgg ci ci ay man-mani boppam rek projet eh, état defalu ko commune bi defalu ko ko moom moo ko defaral boppam kooku wax dëgg am na volonté pour gën a jëm ca kanam kooku nag des ko war a pousse des ko war a jàppale des ko war a dimbali ba mu mën a jëm ca kanam moo tax eh, partenariat boobu daa tàmbali tey rek ci lii waaye incha allahu di yem foofu danañ jéem sunu kem kàttan ba fa gaawaan lépp lu ñu wara am hôpital pass war ko am ba ba war sax dem nek hôpital mu mu dem bam ko ni ko noonu it Daaru Salaam bëgg nañ suñu yitte dëgg-dëgg bëggu nañ ko wax sax ñi nga xam ñoo fi euh, euh madame mbacké mi nga xam ne moo jiite santé bi moy daru salam suñ sañoon day muju nek hôpital day nek hôpital bu bu pass bu mag bo xamni ni mbacké ko doone non la koy doone Euh, nit ñi di fa mën a faju di fa mën a jariñu ndax yaatuwaay ba mate na ko wax dëgg infrastructure yi ñu fay def mate na ko tey dëkk bi am na ginnaaw koo xam ne mate na ko moo tax ñi ngi sàkku ci autorité yi ñu jàpp ndalal ñu loolu ba nga xam ni euh, askan wi seen yitte dana gën a mën a faju lu am solo ci tund wi e kon madame Mbacke ci turam laay waxe nee na sant na leen bu baax gërëm na leen bu baax nee na mi ngi sant association bi nga xam ne ñëw na dimbale si municipal di sant nag itam municipal ci boppam ndax techniciens yi fi nekk yaacaaruñu ñoog seen comité de santé góorgóorlu lañ bu baax ci liggéey bi te seeni résultat technique wane na ko seeni résultat pratique yi ñu def nii ci ay création ak kii itam wane na ko ni ko Njaay waxee poste bi traversé woon na ay moment yu xaw a jafe mais defe naa ne léegi li ñuy gën a sant yàlla di ñaan mu dolliwaat ndax defe naa ne tey ku bàyyi post bi ay at boo fi ñëwaatee tey di nga xam ne post bi mi ngi changé bu baax a li ko def nag. danañ sant ki ko jiitee muy Bira wax dëgg yàlla parce que bi mu fi ñëwee fekk fi Yaasin dafa daal di jàppaloog Yaasin daal di fi créer loo xam ne tey defe naa ne gaawaan yëpp yëg nañ parce que Bira bi ñëwee yaatal na mbir mi ubbi na dënnam ubbi na ay loxoom woo na ñëpp boole na ñëpp ba cantu bàjjanu gox ya bokk ca ñoom

par la population de Gawang. Je peux même dire pour toute la population de Mbaké, car c'est un budget d'une rareté exceptionnelle impactant positivement sur notre travail, car sûrement d'atteindre notre objectif qui nous ont été fixés par le ministère de la Santé, ainsi que les réalités du district sanitaire de Mbaké. Cette maternité qui recevait des centaines d'accouchements par, par an et plus d'une soixantaine de consultations par jour peut maintenant, avec ce joli bijou, doubler, voire tripler ces chiffres qu'on a eu à faire ces années précédentes. Sur ce, sur ce qu'on peut dire, que cette réflexion est venue à son heure et nous en remercions d'une voix l'association Ande Liguel Darussalam qui a pris cette initiative qui est non seulement bénéfique pour les populations, mais pour nous aussi bénéficiaires. Nous vous disons merci, encore merci et nous n'aurons jamais assez de vous remercier.